simüle. kañ la gouvernement bi di taxaw tribune yéene kaay ne en tout cas day ñaareelu Macky Sall bi lé Macky waaw la fi dana am kon am koo xam ne kon nag na ca am day waaw wala la fi nekkoon danañu ko dindi ca diwaanu Maroc gale defoo fee lañ ne nag la defaree kon gouvernement ba ma daal di ne waaw en daal jekk naag jekkul daal ñin daal la xaar nag mooy dund gi xam ne kon sénégalais ñu ngi koy dund le day mbir ma soppeeku na mbir mi soppeeku la nar a soppeeku kay ñëw ni lay ah compétence ak efficacité laa la wax ku mënul bawul daal waaw mën na la gouvernement boobee daal waaw l'observateur nee la ñuy defee nag waaw waaw tax ba ñi xam ne ñooñoo a liggéeyal président Macky Sall ci wàllum karange ga day ak wàllum protocole ba ba ca sa wàllum communication ba waaw ma ne la ña ngay dem ca bërëb yi nga xam ne foofee la ñu war a amalay xew ba di daal di xool li jar a xool kay mooy dossier Khalifa Sall Times ne dàq bi nga xam ne ne dàq nañ ko Khalifa Sall kon ci mairie bu waaw ma ne la day d'accord day dama ne la ci day dana ca joxe xalaatam day su amulee ak coppite waaw dama ci dogal bi nga xam ni kon daal dinañ koy jël dàq maire de Dakar te dama a la gis nga décret boobee waaw Macky Sall ko signé woon fanweeri fan ak ren cooru 2018 mook premier ministre am bi de Mohamed Boun Abdallah Dionne waaw tey jëlee ci alxamis ci day conseil constitutionnel dana joxe nag xalaatam ak taxawaayam boo xam ni bokkul ak bu gouvernement bi lée léeg li ñuy xaar mooy dogalu conseil constitutionnel boobee Khalifa Sall mi dana jëlaat Taif nee na kuréelu fi bi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ca Casamance di waa MFDC daje nañu réunion nañu ca Guinée Bissau di aa waaw waaw ay punkal yoo xam ne koy ñoom ñoo nekk ca kuréelu fupp yooyee ca Casamance daje nañu dee ca Akinsa ca Guinée Bissau ngir boole seeni doole laa la wax seen commandement militaire yi Salif Sadio daal moom moo fa nekkul woon waaye bu dul moom punkalu da nga fowoon laa la wax César Atoute Badiate Ibrahima Compassé Diatta ak Fatma Skouli yéene kaa ngi ne waa MFDC yooyee nekk nii ñi nga xam ne kon dañ leen a dig ne dinañ leen teg loxo ay mandataire waaw loolu lañ bëgg ñu dindi ko liñ fi war a dindi kay mooy marché yi nga xam ne dañuy lakk rek le soleil yéene kay de marché yooyu nga xam ne ngi lakk day waaw nees def na kon ba def fa daal maanaam am kaaraange sécurisation xam ne day jël nañ wax en doy na waar li xew Itali démb doy na waar le quotidien yéene kay de benn sénégalais boo xam ne day Ousseynou Sile wuyoo daa jàpp otage benn bis kaar la lu tolloo juróom fukk ak benn laa lay wax ni la muy naqarul day mooy politique migratoire moodu moodu yi nga xam ne kon ñi ngi dem bitim réew yooyu rek ak na leen de enquête yéene kaay ne déet waa ji kay daa bëggoon a rey de meurtre maar di Italie ak enlèvement ci benn bis boo xam ne kon ay élève lañu lii tax na ba ministre italien intérieur ba ak a maire Matteo Salvini maa la ko wax boog sobli kay daa bëggoon a daal xale yi laa la wax maar di Italie ak ñooñu àndal kay ah tey bi chauffeur chauffeuru biir ko yéene kaay ma jamal jàngi ne coowal Tambacounda la waaw mujj nañ koo tëj ak juróom benn weer xam ne kon du ko tëdd six mois avec sursis la musiba critique yéene kaay musiba de scandale d'état kay mooy waa ji la Lionel Mandix archive bu palais ba day la waaja nekk di yëndu te moo ni Sénégal a koy fay ngir image su président Macky Sall moom photographe bi paparazzi la de ndax ma ngay lëmbal ak yërndu yamu ca di jëlaat archive bu palais ba ca boppam kon di ko def ci paasam waaw maa la wax de yusutudi ci sur ne léegi day transhumant yi ñooy buur Abdoulaye Wade lañu amoon ay teraanga day ñoo ñëw di laalaati teraanga ji exclusive yéene kaay ne xaw ma waaye responsable Benno Bokk Yaakaar yi nekk ca Thiès ñi ngi bëgg a dee ak gàcce laa la wax danañ dee gàcce de wax ju bari mber mber di yuuxu fu ne dik Macky Sall ne ko dinañ gañe gañewu tus dañoo jékki-jékki rek ne parti daal di noppi laa la wax benn département rek am juróomi ministre ñeenti directeur généraux benn vice de cabinet benn a tekk ray leen gañe leen ñoom waa Benno yi lée muy Abdou Mbow Augustin Tine Ibrahima Ndoye Ndeye Saly Diop Dieng Ndeye Ramatoulaye Gaye Diop Alioune Sarr Abdou Ndéné Sall Mbaye Dione Siré Dia Maodo Malick Mbaye Ndeye Tické Ndiaye Seynabou Ndiéguène Papa Camara Amadou Ndiaye Mamadou Thiaw Babacar Pascal Dione Talla Sylla Demba Diouf El Malick Seck noonu ñii moom xanaa léegi dootuñu xasati Idrissa Seck moom fu mu leen fekk gañe leen waaye Idrissa Seck day 24 heures yéene kaay nee MC bu réew mi nee na waaw ab colonel u armée wuy def lu bon nan lañ ko mën a falee attaché de défense ca ambassade Sénégal ba ca Washington donomaar réew mi quotidien léegi daal daa mel ni dafa am bu bees bu xew ci réew mi mooy engagement politique boo politiquee daal ñu saaga la xas la toroxal la parce yaa ngi politique xoolal colonel Kébé li ñu ko def Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade ak ñeneen ak ñeneen sax jublu ci jafe-jafe nit ñi ndey yi la juróomi téeméer ak juróom fukki ñoo am ci réew ci fukki million ak juróom ci ay sénégalais laa la wax doy na waar <laughs> alaaji li enquête bind démb rek ne cent mille personnes benn dentiste kese téeméeri junni ci ay doomu adama benn docteur la ñu am ah xëj na kenkenaa bi tane fuuf septanaa ba boo paree ma ne la alaaji tëjal